waaw salaamaaleykum rahmatulah waa Sénégal asalaamaaleykum rahmatulah euh, waa adduna euh, ñu ngi nuyu ñëpp di ñëpp euh, di wax nag démb lu xew assemblée nationale war loon mën a bett ndax le président Ousmane Sonko waxoon na leen ko assemblée nationale ba woon du bii léegi nag gars yi nag ñu ngi téy seen làmmiñ rek di téy seen seen génne di wax naan waaw Guy Marius Sagna lu tax muy si taawul bi lu tax maanaam Barthélémy Dias këf micro ñoo tey eh ñoo tey lan moo tax ba Sonko doon wax ñu so bu Sonko di débat jël micro di débat waa APR génn salle bi dem bàyyi ko moom dong muy wax ba temps jeex ñu duggaat la ma tax wax lañ si loolu naaw féq ngeen trop bàyyi leen naaw féq ak simis ak simis ak rambaaj ay naaw féq ngeen wax si yow nag yow ku ñàkk jom nga yow ba man jom ba Ousmane Nawel di attaqué nga génn tontu ko yow ku dul tontu Ousmane Nawel ñu duñ la tontu dama la xam benn affaire boo duggee si garde nag garde euh, euh, Barthélémy Dias dugg si garde euh, Guy Marius Sagna tu auras tout sauf la paix yow xamoo sa bopp nag yow Comment Pape soit un homme un ne doit pas comporter comme ça comme ni ngay comporté wu da ngay c'est quoi le problème c'est quoi le problème fi de Sonko man la saga nday verbalement Pape Fall on se connaît très bien Tapez nga buxoon nga attaqué man ma def vidéo ne Neul du fi se une Pape Fall je te suis en en personne bis ma gis nga attaqué Ousmane Sonko wala attaqué Guy Marius Sagna wala Barthélémy Dias tu auras tout sauf la paix